Salut les amis de eSport TV et de Barbe Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Merci encore Gaël de vous des abonnés. Comme nous connaissons ça, merci tu conseiller abonner à chaîne, mais également de Barbe Show, Demfe, agrandir la famille aussi qui eSport TV. Nous sommes qui Rukrukat, les Sénégalais, diaspora, nous sommes déjà Jeffrey, nous sommes à l'hôpital, nous sommes Ben Yon, nous sommes à fo nous sommes à Kasso également, nous sommes à Derolen, nous sommes à Niabot, nous sommes à nous sommes Khalena, nous Nous avance ensemble dans la magie de Barbe Show et des Sport TV. L'actualité en contenu actuel ñu fas yéene le FC Barcelone et le plan Lamine Camara wax également qui Kafou bi nga xam ne gars yi nag moom mi ngi di jox leçon kii mooy donc Gary Neville mais aussi kii mooy Fiorentino Pérez li interdit joueurs Real avec qui euh, kii di Rodri annoncé grève des joueurs contre l'UEFA ak Ligue des Champions mais aussi hein, xel bi yëpp dem ci donc euh, bërëbu sell boobu Touba ak Domare, mais yi fa nekk nga xam ne jamono ji daal mënd mi moo tàmbali di ak taw bu bi ñu ne également yàlla na suñu borom saa su nekk leen ni ko defee ak euh, ak ak également également ki nga xam mooy sàgg bu rëy boobu nekk foofu eh, di Serigne eh, Ahmadou Bamba Khadim Rasoul daal leen di taxawu eh, li nga xam ne également mooy suñu mbokk yi nekk ci Sénégal notamment ñu nekk ci Dakar boo leen mën a jàpp dem fa nga mooy donc ca centre de transfusion sanguine may fa seen deret ndax jamono ji dañoo soxla deret te aussi ku ko def rek di ci am yool mais aussi di nga sauver nga texeloo doomu aadama yu di nga jàppale bokk doomu aadama yu bëri ci seen i torof torof nag di Issam Ben Yedder gars yi nee leen nañ ko jàpp li tax ñu jàpp ko nag moom daal li ne nii daal xaw ko daal moom daal euh, moo depuis quelque temps daal jigéen ñi ñu koy song mais aussi commencé na mandi kii nag di Stefano Pioli yi moom daal fi ne nii mooy nar a nekk entraîneur bu li nga xam ne donc Al Nasr bu ñu sukkandikoo ci dernière information ndax ki nga xam ne donc Ruiz mais fa nekkoon daan koy teggi nombal tànkam daanaka dañ koy dàq teggi teggi tekki nañ nombal tànkam donc Pioli daa mën a Sadio Mané ak Cristiano Ronaldo le derby de la Ligue des Champions beaucoup na ci match Milan AC Liverpool match bu na a neex h lay ah, donc on match bu ko ken tabé 20h manama Sénégal euh, donc duel bo italo anglo anglophone lay donc on espère voir qu'est-ce que ça va donner justement pour rester au niveau de la Serie A qui nak di Romelu Lukaku ak Vara ñom daal ñoo duo bi nga ñi ngi wane deux buts ak deux passes décisives en championnat donc ñoom it ah, les deux deux hommes forts de cette équipe dirigée par un certain Antonio Conte kii nag euh, dit donc euh, Fiorentino Perez selon les médias espagnols moom daal dafa tere jouru Real Madrid ñu waxtaan ak presse bi den accord ak interview tant que amuñu ndigalu wa Real Madrid ndax fini mu ñom dañuy éviter bépp débordement dañuy wone également li xam communication baax lañ bëgg a aussi éviter yenn piège yi di wane Real également équipe bu mag la de gis ngeen bu am na joueurs yoo xam ne surtout Mbappé boobu nga xam mo dàq génn wax. Real na fi ne am fa da ngay liggéey di du gagner bo beugé bokk ci ñi gagner trophée yi ma goog donc Fiorentina Perez ki wona di wanewaat bopama ah. ki nak di Rodrigo momit it gis ngeen ko photo bi woné tay mom ak papa ma ah. bo leen gisee gis ngeen niroo ni ñu niroo lañ naan lu bokk rek niro ma goog Rodrigo qui a présenté aujourd'hui dans les réseaux sociaux une énième fois encore son père ah ma goog boo lay xol à première vue rek nga yaakaar ne waa kan mo ci Rodrigo ngay wax bu won lexu papa bi mom <laughs> do ko xam ki nak di Dani Olmo mom limu bëgg moy match contre Bayern bi en Ligue des Champions mu joué ci touti ngir mëna préparer classico bi diggante Real ak Barça ah classico ko bobu ren nan na neex benn jour bu ko manquer donc momi nga xam dari Olmo dañu weer lay tok du joué ci loolu nekk kafu nak néna Gary Neville du dara du tous né nañ koy fay pour mu nekk ci télé di wax lu ko neex di wax lo xam amul ndax néna mom moom warut a nekk fi naan mooy jugé Messi Ronaldo kan mo ci mën néna na loolu ay ñom Ronaldo ñoo Ronaldo brésilien Zinedine Zidane ñoo am taxawaay ndax ñom gagné nañ dara way néna ki nga xam Gary Neville gagné gañewul tous ba ci daal di wax loolu nak kafu moo ko wax mais aussi bonne nouvelle pour Lamine Golden Boy mu Laftiat Camara bi nga xam ne gars finalement il sera apte et probablement titulaire contre euh, ñii di waa Monaco Monaco euh, contre Barça plutôt Monaco a ñu koy a baax ndax euh, ñaanal nag cat seexlu ko comme ni ma doon ñaanalee Sabaly rek na ko cat seexlu booy bi may ko rek mu defal ñu lu rëy ci carrière parce qu'on a besoin de lui en équipe nationale également Rodri nag moom li mu wax rëy na nee na daal grève des joueurs daal jege na. par rapport li nga xam xew jamono ji match yu bari ñu leen bëgg a en Ligue des champions ak championnat et tout ñom dal notamment format Ligue des champions bés bi neen daal ñu ab grève gaay dañ ko laaj ndax grève mën naa mu ne soreetul dal ki nag di akkan ji mu wax na neena na moom li fekke ni lay continuer moom sama fanweeri at lay bàyyi football manam at 30 ans ma fay gee bàyyi football parce que neena da nga jouer championnat xey ñu lay wax ay community shield di la wax ay yeneen trophée nga ñëwaat ñaan la Ligue des champions match yi ñëw tegaloo ni neena li ay nit lañ quoi machine atonu ko momit it loolu la di feussel les amis li mo nekkoon information ñun bëggoon jox nak de leen ñaanal encore une fois ngeen wëy di like wëy di abonnez abonné comme ni ngeen koy defee vidéo yi dem leen ci Show aussi un 17 ans actualité yi ndax bokul ben yon comme je dis on fait la différence parce que loolu moo ñu war ñu mënul matal fi ñu matal ko feulé so baxé ci yéen la gars yi bonee ñun la bu ko faté encore une fois s'en jappalé moy ngeen abonné partager liker jaa ngeen